déjà bu ñu ko bëggoon def euh, politique dañuy làqatu di ko def parce que moom nañoo làqatu di di jël nit ñi mais defuñu ko donc lii dañ dañu ko fàng ba ñëpp euh, gis ko ñaareel ba aussi bu def politique mooy jël ñoo xamante ni bii nekkuñ ci critères yi ñu ni bac nga jël ko am BFM mais fii affaire leer na donc képp koo xamante ne bii amoo le minimum mooy le bac doo ci bokk loolu moom mooy li nga xamante ni mooy leer te ministre la aussi. Euh, il a été très clair moom fekk na euh, système bi ci benn niveau de qualité bo xamné ni euh, ak ay réformes fekk na ko fi du mom moy wàññi niveau de qualité boobu donc kooku moom la ci xel yépp dal képp ko xamante bi nekkoo ci critère yi do ci bokk ak ku mën don. Wa waaw ku ñu jël rek xam ni vraiment il est dans les il a rempli toutes les conditions pour nous, pour nous jël ko.